te de li euh, c'est vrai une unité de traitement conditionnement de miel waye en même temps ñu clôturer formation bo fukki fan la durée pour waxtan ci apiculture durable noy de récolté ko ba conditionné ko te doo gàllankoor environnement. formation boobu dafa am ñaar ñu jógee Dakar ay spécialistes ñu nekk ak ñom fi ci Sorance mu am ay participants yu jógee Jiree ji mu am yu jógee Jaasi Mandina ñoo fekk wa Sorance ñu nekk ci leul bi ci fukki fan yi defar nañ ci ay riche Ruche Vautier à la sénégalaise, Ruche Langstro, Ruche en bidon, si on veut. mu nekk que xam ni am jëriñ la waaye yemuñu ci nous dem récolter as Bien ko récolter traité unité Performance Afrique un partenaire financier bu Nouvelle Planète nous avons financé programme de tabac tabax yi équipé ko traité ko foofu conditionné ko foofu tey produit boobu moom ngeen gis ci cérémonie de remise des clés bi kon formation bi 39 personnes ñoom ñoo participé góor ak jigéen bàyyi ko ci ñetti communes yi ñoo daje fii ci Sorance di jaajëfal waa waa Sorance ci seen accueil ak ñu jàppee programme bi ci ñetti at la 2023 2025 waaye jàppal ni gën ngaa tuuti 100 millions de francs CFA dugg na ci programme bi bi jógee ci bailleur de fonds bi mii di Nouvelle Planète jaar ci Performance Afrique